c'est une boutique Lodeco Lodeco que une boutique une c'est la meilleure sur toute la capitale sénégalaise xoolal ma rideau yi façon couleur bu am fi L'idal Lodeco rek la Lodeco am prix en gros il y am détail. capital capital Dar cred cu capital Su combine se lau Nya pădă ni ce Na mo nu dara Fe până ni wace Nu de nu nice Axu revives te golfi să loco Nac fi moi capital eh. Dalee nostre solo mu tartar seytaane abal ñu xajoo fi sunu biir yow abal ñu ci lan moom dama laa seen ngay peñewu ba aj sa mbub mi naan ngay peñe sa dënn bi loolu pour lan la waaw am sama peñe di peñewu dañ koy tere ok terewu ko mais ngay def yëfi nit yaa ngi peñewu nit ñi di la seetaan ngay peñewu di dem rek fa ngay mujjee nag mooy peñe sa colonne vertébrale yi peñe la sa colonne vertébrale yi <laughs> as bàyyi loo gis nga tudd ko ah, boo ya, def ngay wala eh. nga def te yaa ngi ñàkk rek nag nga ne yaa ngi ñàkk nee naa la fa sonn baal mayonnaise bi ngay lekk boo jógee jaara di la yan mayonnaise bi nga ne ci di taxamti koo ko bëgg-bëgg lu mayonnaise jaara daa baax rek waaw xam na wax ne du ay dëkkandoo néew man fa léegi néew ma la bon de ah loolu nga looy wax ni voilà donc moytu mayonnaise bi laax mën naa baax mais yow moytul mayonnaise bi eh, as as teg ma bàyyi ah. tey mën nga xëyee nii ni ngay ñàkkee mayonnaise bu bari bi la ci sa yaram yow gis nga li bo gis nga li wax ci wax ju bari wax ju bari ji bo amone jabar ba tay ba tay réglé nga bo amone jabar ba tay may nga ma jàmm salamu na wax jabar mom dama lay wax ñaari baat nit munu ko ñaanal nit yow eh muy ma xam nga ndaw ci dekk fi moy ndaw ci dekk ni suñu ginnaw suñu ginnaw moy ndaw ci di balé bop koñ ba bop koñ sooda xamoo ah, tamit yow tay san ku bax mo kay ma jox la ko eh, Fodé sooda mom nit ku bax la ko dama ko yéene ku baax. mu jël ku am jom ku mën a yor jigéen laa ko yéene. mooy man ma am sama yéene di la wax xanaa yow baaxoo amoo yow amoo jom. man moom wax dëgg yàlla foo de mënumaa yor sooda jom ji ma war a am pour yor ko moom laa amut ma baaxu ma. am na yow doo nit. jël ko. jël ka sooda yow jël ko yow. déedéet bañ mu bale ma. ah. mooy bañ mu bale ma as. la bale nga peñe ko. loolu mom mbëggeel lu muy doon mom xana mbëggeelu lu balé peñé fi capital. capital. yeah capital. Koko ah. national ay man sama papa yi koko koko national yow ah, koko bandi nga de nii ngay def non mais yéen dama tiit da ngeen sañse hein eh toogal eh, eh waay waay waay waa papa as pap Fodé mbaa xam ngeen ni ki leen ñawal eh. lu mu kubul baaxul la ilaha illallah <laughs> eh, dalen yak fim fi mu toll nii xoolal. Mhm. yéen a ngi xasaw. Eh? <laughs> yéen. fi mu hmm. toll ni waaw yéen a téye nii sañse bi. Ah, sañse ngeen def ngeen ba mu bax la la wax. nga def sey couleur ni mhm. non man yi dama koy bëgg wa mo mo la génne li vee la wala. est-ce que do X. wa X la. X la. <laughs> Eh! la. nga de sa couleur ni? bleu marron rouge blanc jaune de mhm. mhm. sa rose nga deg papa as mo yone tas giri rose ni. li ngay kase lan la la bañ samay bañ samay non la fo de fi mu nga la sa ni. xar oh man yow bëgg tas def noir ko non da dama lay sant di la gërëm mhm. ndax xol bi la yàlla jox ah, am na ñoo xam ne lii nga def munuñu ko mhm. nga sañse rek ñu nangul la li nga sañse munuñu loolu mhm. dangay ngay sañse ba rafet génn ñu naan dafa àbb yére bi xoola baatu mbub ma daa weng dan koo may tisi bi moo ne sol na ko rafet na ni mais ni nga ko gisee du sangu de yooyu la ñuy tekki sa der ndax fi lan dëkk nag xam na lépp mais comme nii nga amee xolub nangul ñu suñu sañse yi yàlla la yàlla may ay sañse amiin amiin <laughs> te nag as li nga ci xamul mooy ni nga koy gis nii jàngkat la ma loolu ma neex ci moom moom jàng kat la kër gi ñun ñoo fi ne di hmm. xale yi ne ci kër gi yëpp ñun xam nañ ñu de <laughs> am na tailleur yoo xam ne nag hmm. amel nañ nit ñi àq de ah. mérito nañ 17 ans de prison ferme mooy ñi mënta ñaw billaay hmm. ndaxte dama xam ne nit yóbbul la tuseem nga ñawal ko faaru ngelaw li du jaar fune moy e fatali jamono ba may dem Ngor ca sou mare bala sou mare? re ma bërëngu nak ca côté ba ca el ba ay yalla mune da def ay couleuram noonu rangele ko ay birigam xawma ma se ñaari tali xawma ma arc-en-ciel la wara wax xawma rido may ga man dal <laughs> mu ne daa jël rose nag aj ko fii di ma saf man chtt man am naa lu ma metti nee dañ koo génneel baat noonu x xaw ma y xaw ma z caaya boo xam ne buy taw mën naa muur maase kermeel ba mu daj lii kenn xamul lan la couleur bi maa ngi tàng jër jër jër man mii soluma ko sax mais man man si boppam maa ngi tàng yow xam nga la ma la bëgg a wax yow moomoonu doo dem sol sa nilon bi ci jamonoy tàngoor wii nu ne ku ney wut foo féexloo seet lu oyof sol ko nga sol sa nilon ñëw dugg ci suñ biir ak yow lii nga sol lii di mel ni ay laafi jën lii faat du mbote gi yow foo nu jaaxale cib sañse yow bala ngaa digle cangaay na fekk nga sangu yow mënoo sañse ngay mel ni bulet ci digg dëkk bi sa faat du mbote yi lii mooy lan jógal jógal ba ma tekkiku dinaa jug de waaye tey li leen met teguma leen ko duut naa leen ko seen mbàjj yooyu. ñu duutaat la ko ngay mel ni ancien indonais. kii dafa réew kii kii dafa réew nen day jàng nii. te ni gis nii nilaar la xamul dara triche rek lay def. CP lay def CP. yow kii lay nit. réew kenn yaru mais nag man yow xale nag réew na de. xale ba kii. mi lim ñu waxal nii lii yëpp lan la. demal xoolaat sa bopp li nga

Marie Louise jaruma xoole jaruma yërloo tey dërëm yoruma ko duma dagg juuti jaru dagg juuti dama tiddi eh? ah papa a sañ-saña Allah toogal xaaral ba pare balaa maa Allah ah non dama bëgg lii ci góor surtout si hmm. papa as papa as yaa belli kon Marly macha allah. kafoo kon sañse naa. yii yaa ngi ca biir man lii laa bëgg ci paa da ngaa jantal. dëgg la xam sañse tee ko. non oh. macha allah papa As. Marie Louise damaa bëgg lu baax. dëgg mhm, la loolu moom dëgg la. nit loo am da ngay sañse. dëgg la sagu nit la. noonu la de macha allah. dëgg la. yow nag nitu dëgg nga. dëgg dëgg rek ngay wax doo caaxaan doo fo. damaa bëgg nga wax ma ndax sañse naa te yàlla rek tax nag. papa as loolu jarul xel ñaar papa as da nga mën a sañse yow lu foo génn ñi ñu apprécier da nga sañse. ma ngi sa papa Fodé ku laa xa sañse. yow loolu sañ nga ko werante. waaye li ngay def en tout cas ci jamono bi ma toll lu ma am ci sañse laa koy def. te du wér te boo génnee ñëpp apprécier. dëgg la xoolal koñ bi laa romb ñu naan ma papa as la mu sañse man ne xaaral ma ñëw yër xool nag loolu dëgg la am du dëgg. koñ baa ngi wax nii. ñu lay wax moo yow la ñuy moo tax war a def lu baax. nit moom um, lu baax rek la war di def. yow. allah non bég naa. maa gën a bég. Hmm, bég naa bég. maa gën a papa as nag. billaay bu caaxaan jeexee mhm, mhm. <laughs> allah. dëgg la mais papa as da nga modde. ngi mel jeu de lumière. man mi mhm. gis nga place de l' décoration yow rek na la jël def la bâche bi ngi de ci papa Seytassene bon na. dama koo kaseeg sama rein. Hmm. papa as vulgaire nga papa aju nga. ken waxu la dëgg kenn waxu la dëgg li nga sol ni dara baaxu dara dara dara baaxu il est arrivé dans la ron wagon. donc nga modde alum ne bëgg cee français yu jubul yow papa as lan la.

Capital. Ah, be my capital. Capital. Ah, be my capital. da fekk da ko capital ku ci siisu. yendal doo fanaanal. fen guddi fen bëccëg. yow boo gisul loo fen sax nga fenal nit. ñaaw na. kii de moo ko fiy fàtte léegi njaañ tas ndax jinax jee fii jaar naan ko fóole ah naa am frigo di ko ci tëj nag temps moom daa mel ni kuy gaaw a perdal mel luy farox hmm, gii gën a farox gën a neex la nee na di ko foroxal tuuti nag man dafay xam ndax nàmp bi gën a neex fekk lah dueña. Ya, es una equilibrio paate e tappotoo to to to paate paate tappotoo to to to tappa paate tey eh, moom moom dama garaaw moom ñaata day taaj ndoom rappel accident yi waaye moom naa ni tey moom ay jaay affaire saay saay su ma sëy la bëgg a bi ko ci bu saf-saf ñëw sama kër bëgg sama mag bu saay saay moom ak xale bu saay saay mën nañ ko. yaa ngi gàtt seen tam soobee yàlla. di ngeen xam ne lépp dëgg la taawon bépp laa innové. kii fu mu dem ba bàyyi fi bitéelam bi sax bi borom bi nii ah as bandiwul sax saa yi moo ko ne may ma ci sa kii bi ma xam lan lay saf rek as di bon bon fii mooy capital xul da fekk dëkk capital bërigo ak mocce ñaari bërigo ak mocce ma yen la anak ana boy mbay xama tegal ko fi bu ñama xone ya, pour ñaawal ma tabaski xam hmm. ñoo yéeg sama ada bisa du toj as as Berapa mandi? Mandi, mandi mana kai? Nah, Saya juga iya, naik iya, mandi nana dulu. Mandi mana lol? Apa nak tuduh? Pisin, pisin bi, pisin bi nanti bir kiri. Kopi gas. Andok nyawa di eh, kiri. Ay kiri kaki fe dalang dok lol kain lafi. Sabatian bi mau bal? Di my capital, Da de dëkko capital ku ci siisu da de dëkko capital su koñ bi ne selo ñëpp la laajte na moo ñu dara fépp la ñuy wàcce ñun nu nice ak revives, vibes gal fi sa loxo ndax fi mooy capital